dal li nag jàmm mbokku internet yi li ñëpp doon xaar am na ki nga xamante ne moom mooy Babacar Ngom yëkkati na ay kaddu jëmale ci coowal suuf foofule ca Ndingler waaye kaddu ya mu waaw njort nañ ne suñu watuwul mën naa yokk xar mi karaw ndax Babacar Ngom nee na nañu ma rey waaye du ma bàyyi waaw kay lii nag mooy face à face ngeen ma ma wuyu leen fa bilee taxawaay moom la Babacar Ngom am ci xel dal ak kaddu gu dëgër ca la Babacar Ngom doon wax ci coowal suuf la ca Ndingler waaye itam ci mbirum dund ak dee bi ñu tudd ci coowal suuf ruusu bi la coow nga xam ne ay bés yi ñu génn yépp Babacar Ngom moom la ñëpp di waxtaanee Babacar Ngom ne tiitul ragalul te yox yoxiwul naam sax tey la gën a taxaw temb fas yéene jàkkaarloo ak képp koo xamante ne yaa ngi jéem a wax di lijjante am di jéem a teg ay pression ci moom lii nag mooy wane ne coowal nenga leer gi jeexagul Babacar Ngom ne je vais continuer di yele je n'ai pas peur qu'on me tue damay wëy di fa dem ragaluma sax ñàkk ci sama bakkan waaye wax naa ak ña nga xamante ne ñoom laa fa yabal ngir ñu sàmm kaaraange ga nañu fexe ba benn confrontation confrontation maanaam benn jàmmaarloo bu mu xew seen diggante ak ñafa di baykat ya ca Ndingler lii la Babacar Ngom xamle waaye yemul foofu kaddu yi mu yëkkati ci alxamis ji ànd ceeg ay mbindaanam ak ñu koy taxawu di ko jàppale ci mbir mi ginnaaw sant ak ngërëm gu yaatu gim leen jagleel Babacar Ngom xamle na ni dafa jàpp ne lii aju ci coow ak mbiram suuf ca Ndingler du dëgg du yoon na am sax moom Babacar ngoom jàpp na ne su demoon a bay delloo suuf du ko delloo ku dul waa Jilax ndax nee na suuf suufu Jilax la maanaam ci commune bu Sindia commune moom moo ko jébbal suuf sa ba tey ci ay kàddoom Babacar Ngom di xam na ni ñun nag xuloowuñu xeexuñu coowoo taxuñoo jog yéene bi ñu am ci kàddu yi ñu yëkkati du lenn lu dul indi ak leeral ba ku ne xam fu dëgg féete bu doon mbirum suuf dong coow du am Babacar Ngom teg ca ne fukki fan ak juróom yu nekk ay million lay fay ci xaalis ngir ñu sàmmal ma kaaraange ga dem na sax bay wax ne googule kaaraange ñi koy sàmm mooy waa gendarmerie PDG bu groupe Sedima mi ngi xam le ne moom jàppul benn yoon mbir mi coowal suuf la tax a jokkoo kon coow du ci am ndax bi coow li tàmbalee ak léegi am na ñu bari ñu ko jox ay proposition Babacar Ngom ne proposé nañu ma sax mille hectares ca Casamance bu ñu sukkandikoo ci kàddu Babacar Ngom yi li tax ba nanguwul bàyyi moom mooy dafa jàpp ne mbir mi weesu na coowal suuf daa am leneen lu laxasu ci ginnaaw ñu bokkoo koo xoqatal jële ko foofu waaye moom tiitul yox yoxiwul te du jóge foofu ndax jàpp na ne mbir mi ab injustice la doy na waar waaye tonton Babacar Ngom man moom ma laajoon sama xalaat dama la naan nga bàyyee baykat yi seen suuf te dem jëli mille hectares yooyu nga dig ca Casamance dolli ko ca la dese jàmm na ñooy waaye bu dee dañoo nekk ci dëkk bi ku nekk bëgg a wax ne ku ko rimbax ma timbax la ko baykatu ne nga leer yi ne duñu bàyyi seen suuf Babacar Ngom itam ne du leen bàyyee bi le suuf ba mu jaral ko mu fay ay takk der di leen fay ay million ngir ñu sàmm kaaraange suuf soosule wax dëgg lii bu ci autorité yi jógul jëye ju ñëpp di rëccu dana fa am yàlla buñ fa yegg waaye lu ci mën di am dañ ci dellusiwaat leen ci ay leeral ngi leen di jaajëfal